alhamdulilahi rabilalamin walsolaatu walsalaamu ala rasulihi alamin nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di jullitee ci suñu yonant muhammad salallahu alayhi wa alihi wa kàddu yi lu ko tax mooy leeral ay tuuma ak ay jëwaki lënt yoo xam ni ku ñuy wax Abdoulahat Saane moom moo ko yëkkati fan yi mu doon ku ñu xam ñu tuddee ko nag kashfu muxaalataati Abdul Ahad Sané Aljani jubluwaay bi rek mooy leeral loo xam ni lu mat a xam la ci lim doon wax li feeñ sax mooy dafa mel ni kàddu yi mu doon wax nekkutoon kàddu yi public muy doon wax naan ko Souleymane kon ci privé la doon wax waaye nag privé bu xasee ba génn bañ tasaare ko ba ñëpp jot ci te borom lam fa wax lépp doon lu juunu. loo xam ne ak kiñaan ak soxor ak bëgg a yëkkatiku te yàlla yëkkatiwu ko yëkkati ay nit mu iñaane leen looloo ko waral ko kenn du ci noppi foog ñu leeral ko rawatina la mu wax lépp doon njaxas ak di woote woon boroom borom xam-xam la ak gëstukat la te moom Cheikh Google mooy sëriñam moom mi di wax jàpp naa ko ci loxo ñetti mbir yoo xam ne dinaa ci duut baaraam wan leen ne moom ci Google lay jëlee te li muy wax day ànd ak firnde euh, day tontu audio boo xam ne Cheikh docteur Mouhammad Ahmad Lo moo ci doon leeral ne mazhabul Awzaa'i moom moo jiitu woon ci Andalus ak ci li nga xam ne moom mooy laal ba agsi ci almaghrib loola ginnaaw gi la mazhab Malik ñëw foofa ginnaaw gi fa mazhab Malik ñëwee wax ne mazhab Malik mi ngi dugg fa la nga xam ne moom mooy maghrib ci jamonoy Abdurrahman ad daaxil maghribul aqsa ak la ko wër lépp euh, moom Abdul Ahad mu ne loolu laysa saxiixan comme ni ko waxee ne wérut docteur tudd na marja boo xam ne tudd na ko mu nekk marja bu am solo muy nafu tiib ñëpp xam ko bu almaqarri waaye moom wax na ba jeexal loola waxul na wérut waxul na nekkul foofa ila axirihi waaye moom abdulahat dem na tàppe cheikh google daa di baax li nga xam ne mooy duxulul mazhab wala intishaarul mazhab al maliki fil andalus loolu yóbbu ko ci page boo xam ne mooy islamic story islamic story euh, point info slash dix huit point blog loolu ku ko tàppee ni ma ko waxee da nga gis boo déglu ojo Abdoul Ahad Sall la doon wax bi tartib laa wax de bi tartib na mu ko daan na mu ko doon waxee bi tartib euh, di tudd tur di ko wax bi tartib loolu danga nga ko fa fekk mu nekk fa nga xam ni lim doon wax delluwul ci benn marja bu amee koo xam ne daa daa tayel bëgg yomb Euh, di dellu ci Cheikh Google moom mooy Abdou Lahad Sané ku dellu foofu ma wax te dinaa tasaare page bi ñëpp gis ko nam ko doon waxee bi bi nga xam ne mi ngi tudd tur yi moom Abdou di di tudd ki nga xam ne mooy euh, euh, Asad ibn Abdurahman Sa'saat ibnu Salaam Ash-Shami wax kii 150 la gaañu kii 92 te ñu xam ko ci Ar-Rida waxa waxa wax yooyu mu doon wax yëpp ci page boobu la ko jëlee Abdou Lahad la borom islamic story wax noonu la wax kon xam-xamu jàmbur la jël di ko tasaare bu kooko juumee mu juum bu kooko waxee dëgg mu wax dëgg boo delloo ci taarixu iftitaaxil andalus bu Abu Bakr Muhammad ibnu Omar ci tabaa daarul kitaab al misri al qahira 1989 saxal na ci téere boobu ne ci jamono Abdurahman ad daaxil la alghazi ibnu qays bokk ci ndongo imam malik comme ni yaxya euh, al-laythi ci ndongo imam malik noonu la bokkee ci ndongo imam malik muy ghazi ibnu ibnu ibnu qays al mi moo dugal mu muwatta malik ci jamonoy abdurahman ad-daxil ca andalus loola mooy tàmbali nu tënku ci mazhab imam malik ci li nga xam ni mooy jamono abdurahman ad-daxil doomam xisaam ñëw doomam xisaam ñëw euh, dëgëral ko waaye ki ko gën a dëgëral nag ba tarsiim ko donte loolu tamit wuutale ci taarix mooy alxakam ibnu xisaam doomu xisaam di sët ci abdurahman ad daaxil moom moo ko gën a dëgëral tarsiim ko génnee décret tarsiim ko ci dawla bi loola euh, li nga xam ne mooy masaadir taarix yu bëri euh, junj nañ ko loolu ibnu pashkuwal junj na ko naka noone lisaanu diin alxatib ci taarixu xarnaata euh, saxal na ko naka noonu ab abul wali ibn alfaradi ci taarixu ulamaul andalus ci xaaj bu njëkk bi saxal na ko loola kon histoire moo bindoo noonu mooy borom xam-xam yi comme fekkeewuñ la jiitu kenn ku nekk da ngay gëstu solo masaadir yi nga am ak source yi nga am bu ci gën a fiable li nga jàpp ni mu gën a nekk raajix ci yow nga daal koy saxal daal di koy wax waaye wàllu taarix ñu wax rek nga tëb ne loolu wérul xam naa sax moom bu fekkoon ne leeroon na ko audio yi dina feeñ du ko waxee noonu ndax da doon jëw far euh, kon dana xoolaat bu baax a baax a baax la muy wax al imaamu suyuti ci bughyatul wuaati fi tabaqaati al naxwi fi tabaqaati naxwiyiina wala fi tabaqaati lugawiyiina wa nuxaati ci ñaareelu xaaj bi ci page deux cent alimamu Suyuti ci page 240 ci tarjama 1000 numéro 1886 muy tarjamatu al-Ghazi ibnu Qays al-Andalusi al-Qurtubi wax na ni Qays mii Ghazi ibnu Qays bi moo njëkk dugal mu watta Malik ci li nga xam ne moom mooy moom mooy Andalus te ki nga xam ne mooy Abdul Ahad Sané nee na du dëgg nee na Ghazi mii njëkku faa dugal mu watta kon weddi na weddina ibnu paskuwal weddina abul walid ibnu alfaradi ci taarixu ulama al andalus ak taarixu garnaada bu lisaanu diin alxatib weddina ki nga xam ne moom mooy borom taarixu iftitaahul andalus borom euh, kon ñii ñëpp da leen a weddi ñii ñëpp da na a weddi moom ki nga xam ni moom mooy Abdou Lahad nag moom weddi leen lépp te li mi ngi ko teg ci benn page internet boo xam ne moom la tiim di wax dinaa publier page bi ñëpp gis la mu doon wax bit tasalsul naan euh, ki nga xam ne moom mooy ibnu abdil bar nee na zahabi nee na moom fa waa ji faqih la woon borom xam-xam la woon te benn page lépp ci benn page bi la nekk mel ni ku tiim ay maraaji yu bari te ni mu koy waxee bi tartib bu jéemoon naan di de sax mu tane kon foofu loolu laa fay wax te euh, bu laajee ñu gën ko yaatalaat dinañ ko yaatal bu fekkee nag li docteur wax ne islam mi ngi dugg ci li nga xam ne moom mooy Afrique te duggul ci ñi ko dugal nekkuñu woon ci benn tarixa ci lislaam rek lañ nekkoon parce que tarixa bi njëkk ak ci senegal mooy tarixa Cheikh Abdul Qadir Jeylaani te tarixa Cheikh Abdul Qadir Jeylaani boobu Cheikh Abdul Qadir lislaam dugg na ba am ay at moom mu door a judd boroom xam-xam yépp xam nañ ni lislaam ci senegal li gën a dëgër ci masaadir taarix yu bari mooy lislaam mi ngi dugg senegal diggante l'an mille quarante ba mille cinquante trois li ëpp ci mu arrixuun yi muy borom xam-xamu taarix dañ ne l'an mille quarante la ñenn ñi ne l'an mille cinquante trois la bal boo gënee gëstu am ñu ne l'an mille sax nag far am ñu ne l'an mille loolu lépp ay riwaaya taarix la donte l'an mille bi ñu bëri dañ ko dàq waaye am nañu ko saxal <clears throat> boo delloo ci euh, addawla sanhajiya bu alhaadi roja idris tabaatu daarul garb al islami saxal na ne lislaam mi ngi feeñ ci nooru Sénégal nooru Sénégal nga xam ne mooy mooy mantiqatu Fuuta mantiqatu Fuuta Tooro ci mi mille quarante la fa feeñ l'an mille quarante léegi bu fekkee l'an mille quarante la Cheikh Abdul Qadir Jelaani juddu l'an mille soixante dix sept presque quarante ans après la Cheikh Abdul Qadir Jelaani juddu fekk l'islam dugg na Sénégal ba pare léegi boo deelee ci ñuy wax ne l'an 1000 la l'islam duggoon Sénégal day xaw a nekk siècle sax kon day jege siècle c'est-à-dire 77 ans siècle bu manqué tuuti Cheikh Abdul Qadir Jeylaani door a judd fekk l'islam dugg na Sénégal léegi euh, Cheikh Abdul Qadir judd na te tarixaam tasaaroowul sax bu baax fa nga xam ne fa la nekkoon moom ak fa xam ne fala la fa la fa la siiwee moom Cheikh Abdul Jeylaani Cheikh Abdul Qadir Jeylaani awil Kaylaani ñaar yëpp dañ koy wax Cheikh Abdul Qadir moomu. tarixaam mi ngi gën a siiw ginnaam fale ci iraq waaye bu dee fii ci lu ñuy tuddee biladu soudan nga xam ni mooy euh, garb ifriqiya borom xam-xamu taarix dañuy xaw a dëppoo ci ne Muhammad ibn Abdul Karim al Mughayli juddu 1425 faatu 1504 mooy ki nga xam ni moo tasaare tariqa Cheikh Abdul Qadir Jilani ci mantiqatu xawdi naxri naxri Niger fi l qarn al ci quinzième siècle moom moo fi dugal li nga xam ni moom mooy euh, li nga xam ne mooy at tariqa al qadiriya Muhammad ibn Abdul fi dugal waaye li ko tasaare dëgg-dëgg ci li nga xam ne moom mooy Afrique sud du Sahara li fi tasaare tariqa Cheikh Abdul Qadir al Jilani ci Afrique sud du Sahara mooy ndongab Muhammad mu Abdul Karim mi al Mughayli muy siidi Amar a Cheikhul Kunti nga xam ne moom mi ngi faatu 1552 a Cheikhul Kunti moomu faatu 1552 mooy ki nga xam ni moo dugal tariqa xaadariya ci li nga xam ni moom mooy Afrique de l'Ouest ci biir Afrique de l'Ouest ginnaaw bi nga xamee ne Mouhamad Ibn Abdou Karim dugal na ko moom moo ko tasaare kee da koo dugal waaye kii moo ko tasaare ndongaam bi moo ko tasaare léegi kii moom moo ko tasaare loolu mi ngi nekkoon vers le seizième siècle vers seizième siècle waaye ki nga xam ni moom moo ko tasaare biir Sénégal ak Mauritanie mooy a Cheikh Mokhtar al Kunti ci dix-huitième mooy a Cheikh Mokhtar al Kunti moom moo ko tasaare loolu ci dix-huitième siècle loolu euh, masaadir yi bari saxal nañ ko euh, mahdi saati mahdi saati tudd na ko waaye alhaadi rooji idris mi tuur na ko ci ad dawla sanhadiya kon loolu teggi ko yaakaar naa du yomb ci ki nga xam ne mooy Abdoul Ahad Sané loolu nag euh, moom lañ bëggoon a leeral ci lu aju ci euh, tariqa alqadiriya bi njëkk dugg fii kon kay lislaam dugg na fi lu yàgg te nekkutoon ci ab tarix loolu moom mooy li masadiri saxar kon buñ xamee taarixu intichar li nga xam ne moom mooy tariqa al xaadiriya kon day leer ni tariqa xaadiriya dugg na Séné euh, euh, dugg na Sénégal fekk l'islam mi ngi fi woon ay at laata mu fiy tasaaroo lii ma tudd wone na ko Cheikh Mokhtar Kounti mi moo ko tasa moo ko tasaara ci diggante Sénégal ak Mauritanie ci dix-huitième siècle lu ko jiitu woon a Cheikh Sidi Omar al Kounti nga xam ne ndongo la ci Mouhamad ibn Abdul Karim al Mughayli moo ko tasaara ci Afrique sud du Sahara loolu la ñuy wax ci point boobu li wax nag ni. Cheikh Mouhamad dafa def temps bu bëree bëri ci ma xattaat te bu ko defoon ci téere yi mu ëpp njëriñ téere boo xam da ngay wane li nga mën li nga xam benn mooy li ci nekk mooy xam nga nit da ngay bëgg a yëkkatiku yàlla yëkkatiwu la nit ñi di yëkkatiku yow ngay gën a suufe di gën a jëm suuf di gën a doy waar gën a dellu ginnaaw nit ñi di ci xam di avancé ci aduna yow ngay arrière ci xam di arrière ci aduna moom da loolu ñeme yàlla passé wu ko parce que xamul ñaata temps la Cheikh Mouhamad def ci maxataat fi xayaatil yatim nekkutoon ak moom xamul kañ la tàmbali xamul kañ la ko jeexal xamul ñaata temps la ci def xamul ndax guddeeg bëccëg la ci doon liggéey wala samedi kese la ci doon liggéey wala dimanche xamu ci dara kon ak ñeme yàlla la beneen bi mooy dañuy fatawaa yi cheikh bi bind daanaka fatawaa yi da ko copie collé waaw loolu moom xam nga boo amul xam-xam bu kawe rawatina xam-xamu académie jaaroo ci xam-xamu académie bu kawe doo mën a xam xam-xamu bas ak fatawa nu muy demee parce que Cheikh Abdoul Ahad Sané njàngam soriwul Medine gee muy wax naan boo waxee mu naan jaamal islaamiya mën haj ba di wan nit ñi da ko xam ñeenti at la def Arabie Saoudite dundam yépp lam def ca Mahad Sanawi bi ak li nga xam ne mooy ñaari atam yu manqué yum def kulliye hadis nga xam ne agut njàngam agul mu ñibbisi daa nax waa université ba daa di nax euh, jaaykatu or ya nax jaaykatu téere ya ñibbisi Sénégal du moom mooy joxe leçon beneen bi ma nee na Cheikh Mouhamad dafa taayal fatwaay dafay copier coller fatwaay yi Cheikh Mouhamad tudd ak masaadir yi mu wax ne fa la ko jëlee muy nee na dane daf ko jëlee ci euh, euh, fatawa nuurun ala darb jëlee ko ci islam jawab ak euh, yi demee noonu mu ne loolu la ak di jég ci Google di copier coller ndax Abdoulaye sañ naa waat ni jël loxoom dóor ne Cheikh Mouhamad dafa jëlee ci Google copier coller laaj yi dafa xamul kon fatawaa yi lu ko waral fataawaay li ko waral mooy dafa am groupe telegram boo xam ni ñëpp fa lañ nekk ay tulab ilmi yu bëri nekk fa ñu ko fay laaj ay question mu ko fay wàccee tontu bi nga xam ne bind lay doon maktub ñu dem dem ba jamono ñu gis ne loola ñu nekk ci telegram bi aaj wala ñu tartib ko ci ay mawduaat tabib ko ci ay buntu génnee ko ci ab téere mu mu raajaa ko loolu daal di génn léegi Abdoul moom moom ban fatwa la bind ban émission fatwa am ci télé ci rajo ci fenn na na na bind téere fatwa ñu xool moom fan lay jëlee léegi moom na def nay def chaque semaine muy def fatwa moom Abdul Ahad nee na li nekk ci téere bi ci ay fat ay fatawa chaz ak yoo xam ne da koy askanale jumhur fekk chaz la ak lu muy tarjih te wérul loolu su ko bindoon dana mat ay téere léegi maa ngi koy defi indi bind téere yooyu na ko bind comme moom moom moo moom moo sawar moom moom moo sawar moom mooy gëstu moom du dellu ci Google ci téere yi lay dellu léegi na bind loolu loolu ñu ngi ko ciy xaar bu baax a baax moom Abdul Ahad moom gëstukat bi moom mu sawar mi moom mu taayalul moom mi nga xam ne du jëlee ci Google bu loolu jàllee Euh, wax na it ne li nga xam ni moom mooy euh, cheikh bi dafay jële ci internet lu bëri nee na li nga xam ne moom mooy baxsu salaatu tasbih bi da koo jàpp ba moom moo ko woon Modou Kama euh, foofu leeral na ni kon moom moo yàgg nekk ci ginnaaw Modou Kama parce que moom ñemewul mubaaraza maanaam ñemewul feeñ jàkkaarloo face à face nit ku tàppet noonu lay def rawatina ci xam-xam da ngay làqatu ci ginnaaw kenn donc moom mooy làqatu ci ginnaaw Modou Kama di ko yónni muy wax ak di ko loolu leer na bis ni tey ci audio mi leer na ci naññi naññi ni moom ñemewul jàkkaarloo waaye day làqat ci ay ginnaaw nit loolu nag il faut nga pour mën ko def il faut ragal li muy ragal nag xam na ko bu baax Abdoul Ahad na ko bu baax a baax a moo tax muy làqatu ci ginnaaw nit di ko defloo di ko waxloo di ko génnloo fekk moo ne ci ginnaaw loolu nag yàgg nañ ko xam dañ ko bàyyi woon ci biir rek parce que nag léeg-léeg nit a wax ak moom mais xamoon nañ ko bu yàgg nee na cheikh bi da ko jëlee ci sëriñam boobu di saxaata waaw moom dafa waroon wax ne sama sëriñ bi kon di docteur Lo da koo jëlee sama sëriñ bale di shahada parce que docteur Lo jàngal na ko jànga na ci moom ay téere ba mu nekkee fële nga xam ne mooy ànd ak ay nit ñoo xam ne étudiant lañ yoo xam ne ñoom ñoo bokkoon di jàng ci moom ay téere loolu dinañ ko denc ba xëy na jamono laaj ko wala am nu mu réagir ñu ñëwaat ci détail yooyu beneen bi mooy euh, li nga xam ne moom mooy fatwa képp ku koy def da ngay dellu ci duurul fatwa hmm. kër yi nga xam ne ñooy fatwa ak instance suprême yi aju ci wàllu fatwa masala ya ñuy wax léeg-léeg am ñu laaj la ci masala boo xam ne ci wàllu médecine la wala ci wàllu nazila la ak yu aju noona nga gis ne masala yi dëppoo nañ ci liñ wax nga jël booba daal di koy toxal indi ne fatwa ma euh, kër sàngam la wala fatwa cheikh diw la loolu mboolem ñiy fatwa tey boo demee suñu téere fekk ko boo demoon ci fatwa ibnu Usaymin yi fekk fa muy toxal ay fatawa eh, eh, eh, cheikh al islam ibnu taymiya ak ñeneen ak ñeneen koo fi dem ci ay fatwaam noonu la nee na aussi dafay jël ci islam jawaab waaw moom dafa réere ne cheikh Mouhamad dafa bokk ci ñuy fatwa ci islam moo tax dafa réere loolu moom xamul ne site boobu moom masaayix ay fatwa di fa di fa di fa dugal seen i fatwa jël seen i di ko fa wàccee moom da cee bokk xam naa loolu réere mu xamaale ko mu nekk xam-xam bu bees mu dugal ay noppam te jàllale ko téye ko ci am xelam ba ko rëcc ba mu gisee tey amaana moom yàgg naa jëriñ ci ay fatwa cheikh Mouhamad te ko te dafa jàpp ne site boobu Cheikh Mouhamed Salih mu najid moo ko moom moom dong moo fay fatwa déedéet islam jawaab dafa am groupe bu borom xam-xam yoo xam ne ñoo jàngat question yi di ko di ko fatwa di ko fa wàccee ñu ñu ko fay wàccee jël seen i fatwa di ko fa wàccee kooku Cheikh Mouhamed ci la bokk loolu nga xamaale ko Abdoul Ahad yaak ñi ni yaw beneen bi mooy Abdoul Ahad yow ban téere nga bind man boo xuma téere mais bëgg naa nga génneel ma bahs ilmi yow boo bind yow bahs ilmi yow bu amee kuy wër ci Google yow la yow jàpp naa la 2018. ci Maydaan 2007 2017 2018 Maydaanul Xur Maydaan groupe boobu nga xam dañ ko ubbi Maydaanul Xur ñu nga wàccee fa benn ñu wàccee fa benn bas fiq am benn mbokk bu ko wàccee ne yow yaa ko bind bas bi man ma liiroon ko depuis 2017 ma dem génnee bas ba fa mu nekk ñëw wane ne du sa wax daal di koy nasf wane ne lii du say wax xas bu ko teg ko fële wane ne baax si jaabur nga jël askan la ko sa bopp yaa nga fa woon miix nga def woo ko Abdul Ahad jël nañ baax boo xam ne multaqa ahlul hadis la ci wax ji nga xam ne al imaamu Shaatibi rahimahullah da ko jël indi ko ci i'tisaam jëlew ci imaam Malik daal di wax ne imaam Malik wax na ne képp koo xam ne yaakaar na ne ci lislaam am na bidaa bu rafet kooku tuumaal la yonent bi wor waaye tuumaal na lislaam manqué ne lislaam matut nga ne loolu yow nga daal di koy jël askan sa bopp def ci benn audio mel ni sa xam-xamu bopp la nga ni képp wax ji biñ gëstoo dañoo gis ni biñ gëstoo mel ni yaa gëstu te gëstoo dafa mel ni charte bii rek moo ko wax indi ko ci téeréem te amul sanat te shaati bi dajewut ak Malik kon wax ji wérul te wax jooju yow du sa wax dinaa génne ki ko bind baxse bi mu bindoon ci loolu ci multaqa ahlul hadith dinaa ko génne publier ko ñëpp jot ci ba nga xam ne yow du sa baxse bi it mazhab boobu mazhab batil la xam nga ne yow euh, boo delloo ci bidayatul mujtahid euh, wa nihayatul muqtasid bu ibnu rushd da nga xam ni ibnu rushd alxafid dajewut ak imam Malik dajewut ak ahmad ibn hanbal dajewut ak shafii euh, dajewut ak abu hanifa te bu nekk da koy bas ci fiq ne Eh, Abu Hanifa lii la wax mooy mazhabam Malik lii la wax Shafi a la wax Ahmad ibn la wax kon xanaa lool lépp comme amul sanad dañ koy màbb kon wéru dara wéru ca kon bi wax yi ngay wax di ko istidlaaloo ci ay borom xam yu bari li nga wax fii kon li nga wax fii kon buñ sukkandiku ci sa mazhab dañ dañ koy sànni teg ko fële loolu ci li ma ta bàyyi xel la bu baax eh, beneen bi it mooy Abdoul Ahad damay dégg ñu koy tuddee docteur Abdoul Ahad Sané wax dëgg yàlla bëggoon naa nga jàppale ñu Abdoul Ahad dimbali ñu comme docteur nga nga wax ñu kañ nga am doctorat ak téere bi nga bind ci doctorat sa téere doctorat bi nga publier ko wax ñu ñu xam ñu xam kañ la parce que man li ma xamoon mooy euh, euh, ba nga nekk Arabie Saoudite bac arabe rek nga ñibbisee Sénégal bac arabe nga fa am amoo licence <clears throat> te diggante bi nekk nañ man ak yow ñaari at jëm ñetti at benn place benn bërëb di fa liggéey di yëngu ci xam-xam euh, ci nga yóbboo sax samay téere tartib tartibu sahih ibnu Hibbaan bu ibnu Bulubbaan ku ko fekk sa sa sa sa sa maktab ku ko fekk sa maktab say maktaba bi nga def say téere na xam ne maktaba ba téere ba boobu nekk fa moomoo ko sama téere la ku fa fekk euh, aljaamiul musnad na xam ne it du sa téere téere yu bëree bari yoo xam ne jël nga ko ci man te fayoo ko mi ngi ak yow yooyu nag xëy na bu laajee ma dellu si ci dinaa si ñëw ak archive ma yor ak fi ma ko bind ak lépp loo xam ne aju na ci kon yow xam-xam sax dañ ciy naxaat ci wàllu téere di jël ay waxi jaambur ci internet di ko askanale sa bopp te moomoo ko loolu euh, islamic story bii nga jël sukkandiku ci euh, baax ba nga defoon ci maydaan ñu am ko ko fa wàccee ci masala fiq ne yow la nekkul sa wax naka noonee lu aju ci baax bi nga xam ne moo amoon ci multaqa ahlul hadis ci waxu al imam Shaatibi boobu kon nachaal moom yaakaar naa bu amee ko tàyyeel di dellu ci Cheikh Google dëgg dëgg wax dëgg yàlla yow la léegi nag bëggoon naa sa baax doctorat bi nga génne ko nit ñi yow li nga bind lan la parce que ñun gisaguñ téere boo bind yow Abdoul Ahad yow mi sawar yow miy gëstu yow mi nga xam ne doo dellu ci Cheikh Google ah, génneel sa téere doctorat bi sa thèse doctorat bi parce que doctorat ku ko am euh, donc thèse bi génnee ko jàppale ñu ci comme yow borom xam-xam mu ñu jëriñu ci sa xam-xam boobu jàng ko mën koo gëstu tasaare ko xam daal yow sa xam niveau xam-xam fu mu toll sa xalima fu mu toll sa mën a gëstu fu mu toll sa peeg masala yi fu mu toll ñu ngi la ciy xaar beneen bi it mooy euh, doctorat sax sori na xam naa sa licence rek diplôme licence boo ko boo ko boo ko publier woon ñu gis ko ak bas taxaruj ba nga def ci licence ñu xam lan la ginnaaw gi nga ñëw ci magistère bu après nga ñëw ci doctorat bi nga jàppale ñu ci bu baax a baax ñu ngi koy xaar euh, loolu daal ñu ngi la ciy xaar bu baax euh, lii mooy kàddu yi nga xam ne mbokk yi bëggoon nañ ko yëkkati jëmale ko ci mbir mi Abdou Lahad nag fii la ñu yem ak moom pour temps waaye fi la ñu yem ak moom pour l'instant la ñuy wax rek mooy la euh, waaja waxoon bu delloo bu dellusiwaatee ñu dellu si bu dellu si waatee ñu dellu si léegi nag nit moom euh, li gën a bon ci nit mooy nga seq nit teraanga teraanga gën a mu ji la ko waaye keñaan ak coxor ak bëgg a yëkkatiku te yàlla yëkkatiku yëkkatiwu la tax ngay am yenn waxin yi ak yenn comportement yi Abdoulahat mi ma xam de jàpp naa ne <tsk> audio yi génn bu ci amoon sañ-sañ du génn de Abdoulahat mi ma xam bu ci amoon sañ-sañ du génn nax na nag Arabie Saoudite Euh, nax ñu ñun fii ci kuréel Ifriqiya léegi nag waa Bawol ñoo ko dese xëy na dañ koo xamagut waaye danañ ko xam dañ xam waa ji mooy kan balaa yàgg dañ xam mooy kan daa nax ñëpp nag ba teer foofu li may jeexale nag mooy am na kilifa gu mag gu nekk ci dëkk bi muy docteur Thierno Ka yéen ñëpp xam ngeen ko waaw ku bëgg a xam dëgg-dëgg Abdou Lahad ndax gëstukat la borom xam-xam la ku jub la kuy wax lu am la ku tegee ci yoon la na nga dem jokk docteur Thierno Ka nga laaj ko ci kan mooy Abdou Lahad Sané ak fu mu jaar ak moom loolu rek laay jeexale loolu nag junj la xëy na bu laajee ñu ñëwaat ci daañ ci ñëw waaye su fekkee ne nag moom mel na ni mu war a mel daañ daañ daañ ko sàng sutura waaye nag bu fekkee ne nag jéem naa def leneen it ah su boobaa del si waat ci rek hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain am na nag lu junjoon ci ne <coughs> cheikh bi ci li nga xam ne moo ah, ah, multaqal aal wal asxaab bi njëkk bi baxs bi mu defoon baxs bi da koo jël baxs jàmbur la baxs boobu cheikh bi waxoon na ni daf koo talxiis la ci ñaari baxs da koo talxiis ci ñaari baxs wax na it ne li nga xam ne mooy salaat tasbih da koo jëlee ci saxaat salaat tasbih cheikh bi moom moo ko bind moo ko bindoon ba muy nekk étudiant mu ñëwaat di ko bind 2009 sama kanam bi mu koy bind am na ci partie boo xam ne dafa aju woon ci téere Ibnu Usaymin bi mu def ci salaatu tasbih man maa ñëw jox ko ko man maa ñëw jox ko ko mu dolli ko ci baxs bi fekk yoroon na ko da ko doon vérifier ñu dem ba 2011 mu daal di koy génnee saxaata boobu muy wax moom moo ko sàcc jël ko ci cheikh bi boo waxee cheikh saxaata sa sëriñ la war nga wax ne docteur loo sa la ndax jàngal na la te loolu bu laajee ñu détaillé ko ak seede yi dañ ko indi hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain